ñëwoon ci activité bi nga xam ne mooy Action Aid ñu invité ñu pour ñu defal leen présentation wax leen ministère de la santé fu mu toll ci jéego yi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy def pour dem wàññil métit jigéen ñi ci wàllu violence yi nga xam ne dañ koy subir ñu kontaan ci lool am ci kontaante autorité yi tamit wax ma ne naa ñëw en tant que coordinatrice de la SULUGEN joxe suñ participation suñ participation mooy discours bi ñu def léegi ci biir salle bi nga xamné ministère na tamit comme ñep di djégo jëm ci walu wañi mitit bobu nga xamné mom la jigen ñi am motax genre utiliser nga xamné direction santé de la reproduction de la mère de l'enfant et des adolescents ñun ñep ñuy di def ay outils yo xamné dañ pour mëna professionnels yi liggéey ak ñoom ba nga xamante ne ñu gën a bàyyi seen xel si li nga xamante ne moom la askan wi jànkonteel pour mën a ñëw si structure bi muy problème d'accessibilité et problème d'accessibilité yooyu nag pour ñu dagg buum yooyu yombalal ko euh, askan wi muy surtout jigéen ñi il faut ñu bàyyi leen xel gën a attentif ci seen euh, soxla gën leen a déglu te tamit bu ñu utiliser suñu pouvoiru blouse bu weex bi mais dañuy wàcce suñu bopp ba mën

Euh, euh, secteur sociale dina ci nekk euh, sécurité dina ci nekk nga xam ne kii nga xam ne xas na ba dugg balaa moo génn soxlaam ah fajo yooyu yëpp ñu ngi ciy jéego di jëm ci li nga xamante ne yaakaar nañ ne buñ ko continuer gën koo renforcer askan wi suñ duggee ci biir structure bi seen ajo war naa mën a fajo